Yowaana fukk ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax ku jaar feneen fu dul ci buntu gétt gi kooku sàcc la saay-saay la waaye ki jaar ci bunt bi mooy sàmm xar yi wattukat bi dina ko ubbil bunt bi xar yi dégg baatam xar yi mu moom nag bu ci nekk dina la woo ci sa tur ba noppi nga topp ko ci biti sàmm bi bu génnee yi mu moom yépp dina leen jiitu ñu topp ko ndaxte xam nañu baatam waaye duñu topp jàmbur dañu koy daw ndaxte miinuñu baatam yéesu misaaloon na leen loolu waaye xamuñu li mu leen doon wax noonu yéesu newaat ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax man maay buntu gétt gi ñi ma fi jiitu ñépp ay sàcc lañu ak ay saay-saay waaye xar yi dégluwuñu leen man maay bunt bi ku jaar ci man dinga mucc dinga mën a dugg ko génn dinga amit mbooy goo mën a fore sàcc bi moom day sàcc si rekk di rey ak di yàq man dama ñëw ngir nit ñi am dund ba nekk ci naataange man may sàmm bu baax bi sàmm bu baax bi day joxe bakkanam ngir ay xaram ki du sàmm bi tey liggéeyal xaalis rekk waaye moomul xar yi bu seenee bukki day daw bàyyi fa xar ya bu ko defee bukki ba dal ca coggal ja jàpp ca tasaare ya ca des boobu surga day daw ndaxte xaalis rekk lay liggéeyal faalewul xar ya man maay sàmm bu baax bi ni ma xame baay bi te baay bi xame ma ni noonu laa xame samay xar te ñoom it ni lañu ma xame te it kat dinaa joxe sama bakkan ngir xar yi am naa yeneen xar yu bokkul ci gétt gi war naa leen indi ñoom it te dina ñu déglu sama baat benn coggalay am ak benn sàmm baay bi bëgg na ma ndaxte damay joxe sama bakkan ngir jëlaat ko kenn du ko jële ci man maa koy joxe ci sama coobarey bopp am naa it sañ-sañu joxe ko te am naa sañ-sañu jëlaat ko loolu la ma sama baay sant kàddu yooyee ñoo féewalawaat yawut yi ñu bari ñoom naan dafa ànd ak rab dafa dof lu tax ngeen koy déglu waaye ñeneen naan nit ku am ay rab du waxe nii ndax rab mën naa ubbi bëti gumba bés ñu doon màggal ca Yerusalem bés ba ñu sele la woon kër yàlla ga ci jamonoy sedd la woon yéesoo nga woon ca kër yàlla ga di doxantu ci biir werandaa bu suleymaan yawut wër ko ne ko kañ nga ñuy dund ci kumpa boo dee almasi bi wax ko mu leer yéesu tontu leen ne wax naa leen ko ba noppi waaye gëmuleen jëf yi may jëf ci sama turu baay ñoo may seede waaye gëmuleen ndaxte leen ci samay xar samay xar dinañu dégg sama baat xam naa leen te ñu ngi may topp dama leen di jox dund gudul jeex duñu sànku mukk te kenn du leen jële ci sama loxo baay bi ma leen jox moo gën a màgg lépp te kenn mënula jële dara ci loxo baay bi man ak baay bi benn lañu yawut ya daldi fooraat ay xeer bëgg ko sànni ngir rey ko noonu yeesu ne leen def naa ci seen kanam jëf yu baax yu bari ci ndigalu baay bi ban ci jëf yooyu moo tax ba ngeen bëgg maa sànni ay doj yawut ya ne ko jëf lu baax taxul nu bëgg laa sànni ay xeer waaye dangay suufeel turu yàlla yow nit rekk nga ba noppi di def sa bopp yàlla yéesu tontu ne bind nañu ci seen téereeb yoon ne yàlla nee na ay yàlla ngeen yàlla wooye na ay yàlla ñi mu yónnee kàddoom te xam na ni kenn mënula randal waxi yàlla kon nu ngeen mën a waxe ne damay suufeel turu yàlla ndax li ma ni doomam laa man mi yàlla tànn yónni ma ci àddina su ma deful sama jëfi baay bu leen ma gëm waaye su ma ko defee bu ngeen ma gëmul sax gëm leen boog samay jëf ngir ngeen xam te nangu ne maa ngi nekk ci baay bi te baay bi nekk na ci man ñu di ko wuta jàppaat waaye mu bàyyi leen fa dem yéesu génn jàllaat dexu yurdaan toog fa yaxe daan soobe ci ndox bu jëkk nit ñu bari ñëw ci moom te naan yaxya deful benn kemaan waaye li mu wax ci kii yépp dëgg la noonu ñu bari gëm ko